def ni engagement bi wax naa ko sànq ci saal bi ba bi ñëw fii xaw ma woon ne dinañ ma dénk fii responsabilité amul kenn ku nekk ci saal bi koo xam ne woo naa la téléphone pour wax la ne la bu ma ñëwee bëgg naa poste nangam bu fekkee am na ci saal bi na ko am seentuwuñu ko pour wax leen ne li ñuy def nii seentuwuñu ci ne dañ cee war a jëlee grade wala dañ ci seentu dañoo ëpp kenn kii wax naa sànq témoignage ci moom il a été dans la communauté bien avant liggéey ci liggéey bu am ñu ñëw fekk kii responsable fii à euh, Ross Béthio mënoon naa nekk ne nekk candidat bu bàyyi lépp ñu jàppalante kon dama bëgg loolu yëpp ñu jàppante ji ñu xamante ko waaye nag à partir de tey yàlla daf ñu war a gën a boole ci beneen liggéey bu ñu tàmbali ngeen xam ne li ngeen ma sas nii mesuré naa ko xam naa ko aussi te bëgguma ngeen gën ma bore samay at bëriwut naam waaye jaar naa ci état nag te am na fu ma jaar am na lu ma xam tamit te sumay waajur aussi ña nga dëgg maa leen di fekki yar nañu ma jàngal nañu ma Dans ma petite expérience dans l'administration, ça fait 12 ans, accompagné dans 6 ministres de la xam naa donc un peu comment fonctionne l'État kon ngeen xam ne dama bëgg ki ngeen wóolu dénk ko nii pour moo war a liggéey bi du gone ku bëgg askanam la ku am engagement la ci liggéey bi du ma ci am xarit du ma ci am frère kenn rek laa ci am muy celui qui est engagé pour servir la waxuma pour ay wax yu neex pour nit ñi gëm ma non deful ma fi kenn dara ay ma fi kenn dara fii ku fi jóge yaa yor sa kër yaa jox sa kër dépense mais dañu ànd àndul nawle il faut qu'on xam ne ay milliers de sénégalais ak de Maures. ñoo nekk ci biir réew di ñu déglu te teew ñuy saal bi nekk Mauritanie nekk ci diaspora bi te ñooñu dañ leen war a convaincre pour wan leen ne ñun ñii bëgg nañ liggéeyal askan wi pour que ñoom ñu ñëw loolu mooy enjeu bi l' enjeu c' est pas Lamine Bara coordonnateur non l'enjeu mooy ñun naka lañu war a def ba convaincre suñu yeneen moroom bi naan yi nga xam ne ñi ngi ci askan wi nekk ci Sénégal. xam nga liggéey bi ñuy def pour taxawalaat macha allah kuréelu naar yi Sénégal ak ci diaspora bi tàmbali nañ ko depuis deux mille dix neuf yàlla dogaloon na def nañ benn journée de réflexion ci Pikine. Euh, président République ak autorités yi dugal seen loxo ñu def communauté de réflexion bi Pikine gannaaw bu ñu jógee Pikine demoon nañu Mbacké def fa tamit benn journée de réflexion après demaatoon nañu Kébémer tey jii nag waa Ross Béthio maa ngi profité ci occasion bi di féliciter di remercier le maire de Ross Béthio nga xam ne moo ñu jàppale tey ñu defee réunion bi fii ci mairie sant tamit suma mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk Ross Béthio ñoo yoroon tey organisation bi ah ginnaaw bu ñu defee liggéey boobu nag tey bu ñu dajee waxtaan ñu installé benn comité national provisoire yàlla dogal également suma mbokk yi wóolu ma euh, def ma confiance boobu wax ma ma coordonné comité bi comité bi nag mandat benn at rek lay am ñu jox ko mu liggéey comité provisoire la pour liggéey ci at yii di ñëw bëgg nañu incha allah def d' abord euh, stabiliser règlement intérieur yi ak statut xam ne kuy bokk ci fédération bi lii nga war a respecté ensuite ñu defar carte de membre yi bu ñu paree ci semaine yi di ñëw bëgg ñu def tournée nationale ci Sénégal yëpp dem ci département yi dem ci région yi waxtaan ak suñu mbokk naar yi wax leen ne leen tey ñëpp naam kenn ku ci ne am na ci loo yëngu waaye baax na nag ku ci nekk tamit ñu waa askan wi nga xam ne deret yi mooy daw ci suñu suñu deret ñu bokk ànd liggéey également te dafa jot tamit également euh, naari Sénégal gën a wane seen Pastef ci Sénégal parce que képp ku ne xam nga ni Sénégal ci ay at ci ginnaaw ku mosaan jaaxle danga daan demoon ci bitigu naar bi ah, ñun ñoo yor commerce bi ñoo yoroon également ci transformation der yi ak yooyu suñu jigéen ñi di jàmbaar di liggéey di commerce di dem bitim réew di dem Maroc di dem Mauritanie waaye loolu ñëpp nag pour ñu dimbale leen état dimbale leen il faut ñu fexe ba nga xam ne ñuy waxee benn kàddu mën a tax jokkalante loolu nag bu ñu taxawalee kuréel gi ba nga xam ne jaay nañ carte yi ñu dem def congrès national nga xam ne ñaari junni wala ñetti junni naar danañ jóge ci Sénégal yëpp macha allah ñu ñëw ndakaaru wala fépp fu ñu ko mën a defee Saint-Louis wala feneen naar yëpp daje ñu wan état du Sénégal ne ko ñun kat ay acteurs économique la te dañoo bëgg dimbale état ci liggéey bi muy liggéey pour gën a soxali réew mi te ñëpp xam nañ ne ñun askanu naar yàlla dafa def macha allah ñu nekk ci diggante ñaari réew yi Sénégal ak Mauritanie ak Maroc sax te tey jàpp naa ne tey yàlla mi ngi ñuy dimbale macha allah relation yu rafet am na ci diggante Sénégal ak Mauritanie ah dafa jot nag tamit ñun communauté bi wan président Macky Sall ak El Ghazouani ñun naari Sénégal dañu bëgg a jàpp nekk trait d'union pour gën a dëgëral relation yi am diggante Sénégal ak Mauritanie.